tey nag je pense que dañuy ñëwaat pour pour delluwaat ci li ñu nekkoon rek ci tomb bi ñu nekkoon yaakaar na la ñu war a delluwaat tey ndax amatu Diarra mooy sunu maire euh, ci liñ séq moom ni ci coow li ci wàllu gox bi moom ci boppam def nañu dafa signé terre de verdure ak benn promoteur jox ko ko ci quinze ans moom Amadou Diarra nañu ci 15 ans yi mu ko jox 75 pour cent ci contrat bi promoteur moo ko moom cinq pour cent commune bi moo ko moom. moom Amadou Diarra mën nañu waat paregul ak waa ji ci négociation ci wàllu xaalis waaye terewul defal na ko contrat xaw ma protocole d'accord xaw ma convention ba waa ji tàmbali na liggéey mu nekk li nga xamante ni mu ëlëm xelu askanu Pikine Nord yëpp. bi ci gën a doy waar mooy conseillers municipaux yi nekk ci maire bi yëpp koo ci laaj mu ne la terme accord bi xaw ma ci dara adjoint ñi ci jot a aussi koo ci laaj mu ne terme accord bi xaw ci dara mu nekk lu ñu koy interpellé boobu léegi boobu léegi nag nangu cee tontu mais avant mooy dugg ci chiffre yooyu mu joxe dafa am précision moo bëggoon def dama ko bëgg a wax ne ko dafa bëgg a jël affaire politiser ko man nag tey damay présenté wu ci turu APR pour waxoon ni xam ñëpp xam nañu APR laa bokk Benno Bokk Yaakaar laa bokk mais mbir mi du mbiru politique parce que bu doon politique. ñun ak moom duñu wax bu doon politique ñun ak moom duñu xeex ndax dañoo jógee élection muy élection présidentielle quoi que élection yi jëm élection intermédiaire la te politique dynamique bu évoluer la mais jàpp nañu nit koo demal élection présidentielle rawee ko au moins 7000 voix benn boo ko daf ko rawee lu mu ndaw ndaw 7000 et quelques voix kooku ci at boobu génn goo ko boo fa nekk naan da jogante moom ci politique je pense ne perte sa donc du biiru politique bu doon politique fi ñu toll nii ma ni sunu nattangoo la ci commune bi parce que y' a d' autres forces politiques yi nga xamante ne ci commune bi te tey bu jogante amoon suba je pense que ñooñu ñu koy xëccoo trio bi sax du ci bokk donc li ñu koy wax nii du waxu politique mu jàppee ko noonu wax bi ñuy wax ni c' est un citoyen pour ñëw nag ci loolu nga wax problème bi dafa évoluer te moom moo ko évoluer parce que man bi may wax ba léegi toujours dama naan na moom maire Amadou Diarra moo ni ñu moo waxaat ni signé na contrat ak promoteur bi 15 ci bi muy justifié du ñu tontu ñun ci li muy wax mu ne ñu promoteur bi day gagné huit cent trente trois mille par mois ci moom li ñu def seen prévision buy gagné huit cent trente trois mille par mois ça veut que promoteur bi ci at bi neuf millions neuf cent mille la war a gagné ci at bi ci quinze ans yi mu war a gagné cent quarante neuf millions mais nit ku la ni nit dina dina dina investir deux cent millions ci benn projet ci deux cent millions yooyu bu at xayma diiru projet buy jeex mooy quinze ans yi au lieu mu récupérer deux cent donc dootul affaire promoteur mais il nous parle d'un blanchisseur d'argent donc jàpp naa ne maire Amadou Diarra fi ñu toll nii mook promoteur bi mu àndal ci blanchiment d'argent lañ nekk donc état bi interpellé tuñ ko sax ci li ñu doon njëkk a wax mais li ñuy demandé c'est que la justice sénégalaise surtout saisisse de ce dossier là parce que lu gën a graaw lii aussi mënul am mënoo signé benn contrat ñëpp jàpp ne contrat bi leerul ci bopp askan ñooy laaj nga reeral ci contrat bi nga ñëwaat indil ñu beneen version bu nga ni version kuy blanchir xaalis la parce que nit ku investir 200 millions xaar fukki at ak juróom di récupérer 149 millions je pense que nit wéree deewul noonu donc bu amee nit moom moom ñu mën a séq liggéey boobu di ko def actuellement dañuy blanchir xaalis ñuy ñaan nag autorité Sénégal ñu saisir ci dossier bi ñu leen ko waxoon démb ak bërki démb pour lijjanti lu mbiru maire Amadou Diarra parce que léegi dootul nekk leneen mais danger la ci askan wi danger la ci commune bi ñu am benn maire bu nga xamante ne day am nit ku muy nañu mbiru carte de verdure ak mbiru kayit ñuy interpeller tous les ministres yi nga xamante ni war nañ mën aussi ci district bi di interpeller le procureur de la di wax toutes les autorités administratives aussi du département de Pikine li mu wax dégg nañ ko te war nañ ci taxaw matuwaay bi ñu ci taxaw pour leeral mbir mi ndax askanu Pikine ñoo fi tegoon mais bi ñu ko fi teg teguñu ko pour mu blanchir xaalis wala mu ànd ak nit pour blanchir xaalis maa leen sant bu baax leen gërëm di wax aussi ne mbiru Amadou Diarra communication bi def bi passé bari na ci tomb yi nga xamante ne war nañ ci a ñëwaat mais dañ koy jàppe épisode rek épisode bi jiitu tey la li gën dama la ñun gisuñu Macky Sall Macky saal yoonam newul ci loolu li ma la la rek il est habitué des faits euh, li ma ciy wax aussi parfois li nga xamante ni moo ci gën a doy waar mooy Amadou Diarra li mu xamul mooy ci wàllum économie rek économie bi Marzeng polarisé tey économie bi bi Marzeng polarisé tey mu nekk le deuxième marché du Sénégal ginnaaw marché HLM nee naa ba tàyyi ni ñun bi ñu nekk xale bu ñu mësaan soxla marakis marché HLM ñu soxlaa jëndee jigéen ñi aussi ku mës a xew marché HLM ngay nga koy jëndee bu ñu demee ba ay nit ñu nga xam ne seen ñaq ak ay sacrifice def lañ dem ba tabax marché bu toll nii économie bi nekk ci marché bi yëpp moom mu ñëw xam économie bi fi nekk toutes les banques du Sénégal am agence ci tali mag bi kër yi wër marché bi ñu leen jey 100 millions 150 millions ça veut dire que y a une économie boobu nag boo xëyee ko tabax duñ ko nangu tey boo nee da mooy bari na commerçant yóbbu prison ndax 90 pour cent commerçant yi fi nekk li ñuy liggéey du seen alal banque leen ko légal mbaa ñu am fournisseur bu leen jox marchandise ñuy liggéey donc je pense que li ma koy wax daal mooy wax dëgg yàlla na gën a gëstuwaat gën a jàngaat pour mën a xam parce que wax dëgg yàlla am na ñaari mandat maire mais taxul mu jëlee ci xam-xam taxul mu xarit